loolu rek lay itteewoo parce que itam hmm. secrétaire général ak président en exercice mënuñu toppatoo yooyu ay service la yoo xam ne lii rek mais nag ak ruuxul islam ak ruuxul islam. Hmm. nit ñi dañu dañu yàgg a wax ne pilote en tant que tel valeur la mais pour ñun su dee pilote bu naan bismillah moom lañ taamu. Hmm. bon léegi euh, créé nañ ay. banqaas yoo xam ne yii dañuy nekk banqaas yu spécialisé yii dañuy nekk mouvement yu affilié mhm. mais daal fi mu ne ba Nations Unies am nañoo Nations Unies ay pacte yoo xam ne dañuy weccoo ay xalaat mhm. Nations Unies di leen laaj ay xalaat euh, professeur euh, bu fekkee dégg naa la eh, eh, eh. mel na ni Ousseye euh, jéego yim séq jëme ko ci wàllu développement mm-hmm. wàllu économique bëri na yaatu na mm-hmm. yim séq it ci wàllu jàng ak jàngale bëri na yaatu na mm, mm. mais dafa mel ni su ma la déggee mm. lu jëm ci wàllu politique surtout jéem a rataxal ay diggante ci réewi islaam yi nga xam ne léeg-léeg am ci diggante réew ak morom ma ñuy tongu ante foofu mel na ni jéegoom yaatu fi lu tax waaw remarque OCI euh, yi daanaka fukki weer ak ñaar yëpp nekkuma ci secrétariat ba nekkuma mustachar Moustapha Cissé nekk fi malheureusement mais <laughs> daanaka loolu yëpp boo see liggéey parce que xam nga ne ministre affaires étrangères yaa ngi daje te duñ daje di lépp problème yi la ñuy traité président yaa ngi daje ci session ordinaire wala extraordinaire mais daje wuñ di lépp dañuy rataxal sama li ñuy rataxal dafa jafee rataxal lool ba mu jéggi day waaw li ci preuve mooy Liban ngi nii mënut a fexe ba samp gouvernement ak ñeneen ak ñeneen wax dëgg yàlla du ma avocat wu OCI mais nag côté politique. côté politique daanaka moom parce que organisation bi il faut que njaayeen njaayeen yi xam ne. du jàkka du mahad islami. organisation politique la mais nag boo xam ne l'islam mooy fil bi leen dajale. te nu l'islam gën a dëggoo ci xol yi ñi ko jiitu jiite addina bi gën a naw OCI résultat yi gën a nekk lu concret l'islam a mel noonu waaw. ça mel noonu bon mais lenn lenn foog ma wax ko li tax ma ne gaa ñi progressiste lañ. du lu ma leen may. dama dem ci seen euh, chart bi gis yi nga xam ne kenn mënu koo sàgganee tey. yi gis naa ko ci. tolérance. de sa mot foog ñu cultiver ko ci seen réew yi. tolérance. ictidaal mooy nit ku équilibré. équilibré même. boo uuteeg nit ki lu ngeen gëm sax mhm. tant que tooñ la tooñoo ko lakum diinukum waliya diin mhm. aminu aw laa seen digganteeg yàlla la mhm. mais du tere ñu daje ci marché yi ictidaal même looy contre nga contre ko bi ictidaal wala bil xikmati gis naa ko ci bon xadaasa euh, gis naa ko ci xadaasa mooy jéem a moderniser parce que nit day dox ànd ak jamono te ñun ñun la imaam Ali waxoon euh, ne nit ñi seen jamono lañ gën a niru ci seen bàyyi kon nag bul bul tàggali nit ak jamonoom mais na yóbbaale dara. pour bu mu seey. Euh, gis naa ñu ne war nañ def ay réformes surtout surtout ci technique science ak ci jàngale ndaxte daanaka euh, loolu entre parenthèses la ku jàng taarixu Japon gu bees Japon moderne. ba seen empereur ba si di waxee ne di jënd rek ay produits. na sàppi il faut que ñun ñu moomal suñu bopp technologie pour lam njëkk a jël ci documents yi ma jàng ci taarixam mooy nañ seetaat valeur kii jàngale tëb rek jàngalekat yi mu yemale leen rek vice ministre yi ci ci ci traitement hmm. ku defar ku dugg jubanti benn pont rek buñ la rémunéré rek daanaka dootu soxla dara xool ni Japon doxee dox gaa ñu ne nag jàngale kon war nañ koo seetaat ndax nit ku hmm. jàng te amul xam-xam xam nga musiba la te am na bon wax na fexe ba commerce bi ma ngi ca pacte ba ñu yëkkati niveau bi gën koo baaxal wax nañ nag surtout al xukmu rachid li ñuy wax fii bonne gouvernance parce que bu amul rek du baax dëgg la waaw eh, nag ma les droits de l'homme parce que l'islam ma koo njëkk a ci dëgg ba ci droit wu xale yi ba ci droit wu jigéen ñi ak valeur famille yi valeur famille yi tey fan yi Sénégal la koy jaay Mhm. parce que def nañ ñu fi benn taxaddi boo xam ne ñëpp xam nañ ko kon nag valeur famille yi mhm. jabar jëkkër doom paterne responsabilité xorma ainsi de suite yooyu yëpp dañ ko war a fonk te xam ne ku ne am nga authenticité mhm. mais bu mu la yàqal efficacité waaw jërëjëf mm. euh, professeur Barham mm, mel mm. na ni tomb boobi it comme li ma waxoon ci bi ko jiitu woon E, tomb la boo xam ne bu naat la hmm. lu nekk mën nañ ko cee teqantale hmm. Hmm. waaye dama bëgg bu ne rek ñu jël ca dara pour ñi ñuy déglu ñuy seetaan am lu ñu mën a jàpp e, professeur Bar am xam nga ne ñoo ngi jublu si fan yi li ñuy tuddee ximmatu dakaar maanaam aussi ñu war ko organiser fii ci Dakar mel na ni dakaar ay at walla ay weer mu hmm. ngi ci nekk ñuy dem ak dikk hmm. di waajal xima bi di ko def ay déclaration hmm. ban importance la euh, xima bi ñu def Dakar am écoutez d'abord bépp daje au sommet même si c'est pour la littérature d'un pays ña ko daje buñ sérieux rek dina am njëriñ waxantumaa nag fi ummati bi toll fi mu ne am na état yoo xam ne yàq nañ leen te ñuy état jullit am na état yoo xam ne ñu ngi leen di tëkku am na état yoo xam ne ñu nga xiif am na peuple yoo xam ne jaaxle nañ alors am na ay ñay yuy song ay muus tellement dañoo état yi dañu ëppante mais nag waxtu wii wii buñ dajee te daje dakaar muy dëkk boo xam ne amuñu pétrole amuñu alal je crois amuñu alal mais am nañu matière grise te itam réewu jom la suñu fi dajee ñun buñ xeeb suñu bopp war nañ leen mun war nañu mun a def souffle ci daje bi boo xam ne lu see manqué ëllëg du doon liñ daje woon Dakar sax mooy ay proposition yu wér ak ay xalaat yu leer ak nag teraangay teeru ak dalal ak sago même bu fi ba jiboon sax boo xam ne dëppuwut nañ ko gisee ñu avale ko def nank ba yëf dellu na meloon loolu Sénégal réewu intellectualité la réewu wirdo la réewu diine la euh, su politique ñëwee ci circonstances yi ñu nekk bu ma déggee ñu naan sommet de rupture loora doon maanaam xaw a wuuteeg nam daan demee war na mën am hmm. parce que nit wala mbir bu ne sax day sos su màgg hmm. ah depuis OCI créé 69 ak léegi hmm. su fekkee ne xëy na am na noo xam ne daan na ko demee gënut hmm. war na gis nañ ko fi mu ne nit sax individuellement su amee su defee autocritique sincère dina ko jëriñ cinquantement ñu toll ni ñi fi ñëw ñi ngi d'abord importance bi mooy pour ñun d'abord ak pour ummatu bi ñaareel pour ñun mooy ñëwoon nañ fi yàggut noonu ñëwaat nañ fi alors loolu bon. ndax luy mel danay faral bi am comme ça. bi ñu ko defee waaw déedéet bëriwul bëriwul bi ñu ko defee Sénégal léegi ak bi ñu ko tuuratee non non non bëriwul. Maroc daal ci ñii gën a bëri lu ñuy fay daje la. mais nag loolu moom bëriwul moom. ndax xam nga ne buñ toppoon. mbir bi def ko quota kon ba mu ñëwee ci ñu nag léegi ñu ngi cinquante sept pays la fi ne ne kon ba lañ fee ñëwati euh, maanaam xale yi di mag kon nag ñii xalaat ñoom man jox na leen confiance que Sénégal te mun Sénégal ni mel nii ba ñeme ko mun naa améliorer mun naa améliorer te ko itam dañ fi gën a ñëw rek moo tax importance bi moom ci ñun mooy sag la gis naa ñoo xam ne laaluñ fenn politique ak coom mais ñi ngi ñaan yàlla yàlla ñëw ak jàmm sotteeg jàmm ñi ñi ñibbeeg jàmm itam am njëriñ te kenn xamu leen sax kon nag pour ñun pour ummatu bi nag échec yi bare nañ lool war nañ fexe bu Sénégal ne sommet de rupture ñëpp ne enkañ nañ fexe ba mu nekk sommet de rupture buñ fi jógee benn mool sax bu tegoo ci kaw réalisation yi saka fukki mool baax na te nag mus naa digg benn chef d'état boo xam ne dama fa demoon maag ndawal Faysal rahimahullahu mu ne euh, nit bu buggee def dara euh, foog mu am xalaat bu leer surtout foog mu am ñum àndal def ko foog mu xam lu mu bugg a def euh, xalaat bu leer nag mu ne moom moom kooku jullit fekk alxuraan nañ ci ko suuf rek ñàkk amul problème mu base idéologique ak fu muy dépare base boobu nag mi ngi fi wax naa ko sama conférence bi xëy na ma jéem a ëllëg wax ko base bi mooy alxuraan bu leer waskuru is kuntum qalilan fa kassarakum waskuru is kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwanan fa ngeen nekkoon du fii maa leen fi indi kon nag voici góorgóorlu leen jërëjëf professeur kon bu fekkee dégg nañ la mooy sommet Dakar bi importance am ci ñun Sénégalais yi la ajo d'abord am nañ ci cër am nañ ci cër waaw am nañ ci cër beneen bi it mooy ñu nekk ci kaw. waaw umma tamit fekk si ñu. di xalaat tamit. di demlanteeg yeneen état yi ak dikkalante. def effort yi toll ni biñ ko fi defee yàggul ñu fexe ba amaat ko fi loolu am na importance. importance amul werante. loolu kon jox jàpp na ne. Hmm. Eh, sommet la boo xam ne kenn ku nekk am nga ci cër boo xam ne. boo war a bay la. tey euh, professeur laaj bi may laaj mooy président de la république Abdoulaye Wade. ci lu yàggut dajale na fi kilifa diine yi yépp wala boog ñu ci gën a limu dajale organisation islamique munasamaat yi yépp euh, waxtaan ak ñoom ci mbiru OCI bi diisu leen ca yóbbaloo leen ca it jox leen ca cër euh, gannaaw boo xamee na def na luñ mel ñoom ñu nga xam ne ñoo doon yëngatu bokk xañ na yow doo sañ a wax ci turu sëriñ si sañ nga ci wax sax xañ na waaye association islam yi yaa ngi ci biir parce que kilifa nga ci bu yàgg ko euh, diir biñ dajee ak président ak léegi euh, ndax am na lenn lu ñu xam ne def nañ ko lu ñu mën a làmb daj ko pour ñoom ah non kooku nag boobu question comme ci lu ma xam rek ah. laa bëgg a wax mhm. cest à bi ñuy dajale ñiñ dajale noonu ci koor gi man maa nga Maroc mhm. te itam bi ñu dajalee mbooloo mi hmm. maa nga ca nekkuma ca parce que hmm. Abdou Aziz Sy Junior fu mu nekk wala Amine hmm. ak Imam Hassan Cissé ki mel ni ñoo mi ngi mel ni maa nga ca waaw parce que xam naa leen bu baax doy nañ ma mais nag xaw ma dara ci vraiment luñ def mais lañ leen sant xam nañ ko te xam naa ne ña ngi ca waaw parce que itam l'islam politique bi nga xam ne mooy Euh, lien bi boolee les pays de l'OCI hmm. euh, di dajee ci dëkk bu ne rek di dem hmm. te mel ni nit ñi farewoo l'islam hmm. di jàngale lislaam di conscientiser xeet wi di bay suuf si di élire nit ñi euh, di defare bokk gi ñooñu boo leen wanee ne événement ngi def leen comité ad hoc jox leen ñu ay xalaat nañ ànd daj loolu loolu lu baax la hmm. c'est-à-dire laa ci mënta joxe hmm. parce que parce que dama ko maanaam dama ko fekkeewul hmm. te bi saxaar gi départ itam yéeguma <laughs> mais je suis sûr que ñu ngay liggéey léegi ci biir tomb bi euh, ci biir bi ñuy départ euh, ñuy wane conséquences yi taxawoon aussi sosu Euh, tudd nga ci ne am na lu ko jiitu woon ci waxtaan buñ lay taayoon bu tënkoon euh, Gaynde Fatma mm-hmm. euh, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh mm-hmm. Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. ca Makka ci biir tuuru Serigne soosu ñoom ban rôle lañ mën a suyee ci OCI pour takkali relation bi Sénégal ak yeneen réew yi oh bëri na gis nga doomu aadama yàllaa def ki ko newoon bul foog ne lu tuuti nga lakk bari yëpp a ngi daje ci yow doomu adama tuutiwul si kenn nit mun na lu bare bare waxantuma ay nit ñu bari d'abord xam nga buñ ne sëriñ ci dëkk bu ne ci àddina xëy na wuti nag buñ ne sëriñ ci Sénégal sëriñ gis nga sëriñ ci Sénégal boo ko waxee parce que wax nga jullit ñëpp parce que gisuma fi jullit bu amul sëriñ mus naa wax ci benn daje ci Rabat may wax ci turu délégué yi. ci hmm. Fass. Hmm. Euh, ma ne ma ne ministre ak ki teewaloon buur bi gis nga ñii fi teew nii. Hmm. bu Sénégal doon benn jàkka. suñ ootee julli kenn du des ñëpp dañ julli ci biir jàkka ji. donc euh, sëriñ. foofu ñoom dañ fa demoon ngir congrès rabita. rabita al islami dafa am majlis si si kooku at mu jot la. boobu sax at mu jot ñaari yoon la léegi benn la man membre comité directeur boobu la majlis si si. mais dañuy am nag léeg-léeg ñu am congrès bu mag. waaw les bu mag boobu nag ca lañ invité woon Sénégalais yooyu ñu mag ñooñu. ak ñeneen. boo boo buggee détail sax commission général bi nga xam ne moo amee woon dossier wu invitation yëpp. ak yeneen. Baye Niass moo doon président ba nga gis sëriñ bu ma ni moom jiite président di may parole di note noteel boppam mais kooku c'est c'est important alors ñooña fekkee nañ liggéey nañ mais nag booba congrès ay borom xam-xam ci plan wu rabita parce que rabita gannaaw buñ ne Faysal jógal ci déwén sa comité directeur bi magistrat si def nañ jàng nañ rapport Mbouramine Faysal def nee nañ ko avancé nga lool continuer kon nag loolee démb la léegi bi chef yi dajee nag boo demee ci sama étude boobu ma defoon 68 maa ngi naan ñi ngi naan war naa am warta am mais kuy intellectuel musulman convaincu rek war ngaa commencé di préparer xaat sujet yi nga xam ne foog nga ne mënuñoo liggéey te laaluñ ko alors kon nag loola xewut sëriñ ci Sénégal moom mooy sëriñ mos naa gis ñu daje benn congrès bu mag ci Le Caire en 64 euh, pour créer l' académie des recherches islamiques ñu nuy ji ministre de l' éducation ca booba Kamaldine Hussein mu laaj Cheikh Ibrahim Niass ne ko ndax mbaa euh, yëf yaa ngi dox congrès bi mu ne ko ñi daje fii daal suñ duggoon ci néeg tëj ko waxuñ dara sax suñ génnee rek mu am njëriñ waxin la maanaam ñi war a ànd bu ñu àndee kenn dootu leen yab pour commencer ikitab te yab bi moo koy waxuma yabante ci suñ biir maa ngi wax l'autre ki nga xam ne euh, bu sañoon duñ déggoo pour nekk ci service am euh, professeur euh, boo gisee ma laaj-laaj boobu ma fàttali bokk yi ñu seetaan nit ne ku ci bëgg a jokkoo ñun mën naa jokkoo ñun ci 88 628 78 80 boo gisee ma laaj-laaj bu ñu mel mooy ñu bëri dañoo jàpp ne lu ñuy tuddee sëriñ hmm. Euh, amut relation ak wàllu politique te mel na ni euh, ndaje yooyu dafay am relation ak politique. waaw mënul ñàkk mënul ñàkk jàpp naa ne am waaw xam mi ngi aju rek. ci ni nit ki jàpp ne mooy politique. politique su fekkee ne mooy toppatoo mbiru cité bi. moom la l'islam di tuddee professeur am na ko ne ci yoon moom la moom la l'islam di tuddee che'nul euh, muslimin ku toppatoowul mbiru julli ñi bokkoo ci. waaw allo. naam. allo Cheikh Tidiane Bakary. naam. man la Baye Thiam Medina Baye Baye Thiam mu Seyna. Baye Thiam Seyna. waaw. Baye Alfayda FM. waaw yow la ñuy déglu Baye. ñu ngi nuyu Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop. Euh, vraiment marja ci li muy wax. ndax lu mu fekkee la. Mm. Euh, aussi bu nekk dëgg-dëgg tiitar la pour Sénégal. Mm-hmm. ndax boo gisee mbooleem réew yi ko mos a organisé. Hmm. benn Maroc rek. 3 hmm. 3. Hmm. te mooy 69 84 ak 94. réew yi ci des yëpp nekk benn yoon la ko organisé ba mu des Sénégal ñu ko door a organisé fois. loolu tiitër la pour Sénégal. boo mos boo gisee tamit secrétaire général yi commencé nekk ñëpp. ñaari africain noir ñoo ci nekkoon te mooy kii Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop tudd léegi. te hmm. Hamidou Karim Gueye. Hmm. ak Hamidou Rabit. waaw mbokk mi day. ñàkk nañ ça waaw. waaw mais nag. na waaw euh, waaye mën nañu. ko delloo nuyoo. waaw euh, parce que li muy wax xam na ko quoi. Hmm, euh, ma nga nekkoon ca le Caire ca digg ba. ci information ak rajo kii rek euh, moom euh, xam na euh, teranga la dëgg la. Mhm. vraiment ñëw fi ñaari yoon teranga la teranga mooy tondi loolu la olof yi wax. Mhm. waaw ñun nañ ñaan yàlla rek gën koo mérité. Mhm. mbir yi di jëm kanam rek waaw. oustaz ñu jël ki ci yoon wi. Hmm. allo. naam. li ngay wax dégguñu ko. allo salaam. man Omar Thiam. Baye Omar fooy wootee. maa ngi wootee yow la déglu. Ah, kenn laa ci daayira des étudiants Talibou Baye. Hmm. Ah, ah. di kontaan di kontaan trop ci émission bi. di ndokkeel sëriñ bi muy Cheikh Ibrahima Diop. Mm-hmm. nga xam ne suñ sëriñ la. Mm-hmm. oh Baye Omar de mel ni ñàkk nañu ko xaye mel na ni oustaz mi ngi la doon ndokkeel waaw di bëggee jotaay bi suñ sëriñ la man ma corrigé la suñ mbokki taalibe la <laughs> oustaz nanguwut a doon sëriñ ne la bon oustaz yaa ngi doon wax ci sëriñ soosu ak cër bi ñu war a doxal mi ngi aju ci mhm. nit ki lim jàppee politique mhm. xam nga lépp luy euh, tax nit oustaz am na ku ne ci yoon nit am sécurité am développement. Ah. politique la mais diine la. Uh-huh. allo. alo naam. waaw. waa kooku. Alaaji Ndiaye. Alaaji Ndiaye. waaw. Alaaji yow la ñu déglu. man ni dafa am tuuti doon laaj. waaw yow la ñu déglu. maa ngi leen di sant di leen gërëm ci émission bi. Uh-huh. toujours maa ngi la maa ngi lay déglu. Uh-huh. mais dafa am benn kii boo doon laaj dal benn boo xam laaj naa ko ñu bari daal amaguma ci lu leer. xam nga nag da ngeen tontu ci thème boobu wala déet. waaye yow la ñuy déglu. parce que jigéen boo xam si jigéenam jëkkëram dafa génn àdduna. Hmm. léegi beneen góor jëlaat ko. après yow man xëy am bu tëj dañ ne kenn ku ne sa jabar da nga koy jëlaat bu fekkee taxe nañu est que kooku jëkkër jëkk ji moo koy jëlaat wala ku mu ki moo koy kon negal. daal Alaaji Cissé nga waroon a sant ah? loolu laa doon laaj. <laughs> waaw d'accord dégg nañ li nga wax mais hmm. tey sujet bi du loolu. Ah. tey ñoo ngi waxtaan waxtaanee ci OCI bi. waaw kooku daal kon bis boo amee émission boo xam da ngay wax ci yooyu daal boo ma ci mën a leeral. Hmm. waaw incha allah danañ ci bàyyi xel bu soobee yàlla. waaw maa ngi àjjuma nag ci ngoon booy wax ah, ci. ah kay waaw. chaque àjjuma dama lay déglu. ah kay jërëjëf alaaji. waa kay jërëjëf. man xam nga ñi foog ne. Hmm. nitu diine. Hmm. nit ku jàng lislaam hmm. ndax warul itéo politique mu ne mi ngi aju ci lañ tuddee politique. parce que politique euh, lii ay politique la rek xam nga mi ngi mel lii ay caaxaan la rek. mais politique nga déparé ca grege politique. ba ci lislaam di la wax ne man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minhum mbiru jullit ñi ku kum itteelul. bokkoo ci ñoom marché bi neex na neexul ni ñi wér nañ wéruñ jàmm am na amut ah, sa yoon nekku ci nit ñi nee na loolu lislaam lislaam moo jàngale ne benn nit mi ngi tolloog mboolem l'humanité soo ko rayoon te tooñ ko mi ngi mel ni rey nga ñëpp soo ko suqalee mi ngi mel ni suqali nga ñëpp mais oustaz euh, xam naa am na ku ne ci yoon wi waaye foofu am na laaj bu ma la fi bëgg a laaj ndax ñuy woote woo droit de l'homme foofu dafa am prix bu ñu koy firee am na ko ne ci yoon ñu jël ko pare allo hmm. naam asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, ah aleykum salaam Serigne El Hadj Moustapha Cissé Ahmed Tidiane euh, bi tey euh, man la Moustapha Cissé. Cissé Cissé. maa ngi nuyu Aliou Sadio Ibrahima Mahmoud Diop bu baax. marhaban uh-huh. Cheikh. te di ko ndokkeel di ko encouragé ci arbre bi mu def. Uh-huh. ndax euh, ku ko déglu xam ni kii borom xam-xam bu mag la te itam li mu wax xam na ko. wax na leen bu ma soñoon Moustapha nekk fii ndax Moustapha dafa dund mbiri aussi yi. ci lu wér ci yàlla daf ko may mën mu mën a leeral. waaye moom moom itam. mbiri alamul islamique maanaam la monde islamique wala le monde arabo islamique. lu mhm. ci bëree bëree bëri dund na ko dundin koo xam ne. Mhm. waxuma Sénégal waaye Afrique gu ñuul gi euh, ñi ko ca dund ndegam am na bëriwul. Mhm. Euh, kon maa ngi jégalu ci samay ñàkk aksi hmm, nangoon nañ ko bu baax ndax xam jege pire ak circulation bi. Mhm. Hmm. Euh, moo tax mënuma aksi mhm. waaye nag yoon dem ci benn. Hmm. incha allah. Euh, ni mu def historique aussi maanaam fan la ñu jaar parce que da nga laaj laaj bu am solo da ne kañ lañu ko sos. ak yan circonstance lañu ko sos. Mhm. ndax amul dara lu jékki-jékki rek juddu. déedéet. amul dara lu jékki-jékki rek am. te wolof di sax bala nga ne bala nga ne ñaar ni benn. ndax mu léeb rek léeb bu la. Mhm. ni mu ko waxee bi nga xam ne kilifa yi dénk nañu dossier bi roi Faysal Ben Abdel Aziz. Mhm. ci kattanu yàlla ak barkeel kàddu kilifa yi ko joxoon mbir mi. Mhm. la ci ëpp ci li ko sonal nag mooy njàmbaaru Faysal. Faysal dafa jàmbaare woon lool. te nit ku jàmbaar lu mu téye rek ñaare balaa. balaa moo balaa balaa balaa fokk mu yóbbu fokk mu àgg ci fa mu jëm. Mm-hmm. Euh, ni mu ko waxee bi Faysal lancé appel bi en 1966. ci mm-hmm. ci Pakistan. Mm-hmm. jamono bu jafe woon. lim na gàllankoor yi doon am. mais aussi amoon na gàllankoor politique ci Moyen-Orient. arab yi divisé wu. surtout euh, ñaari ah, ñaari pays ci ëpp doole. muy muy Arabie Saoudite ak Égypte. ndax tombé na. jama Abdel Nasser am doole lool yëkkati alxawmi al arabiya mhm, mhm. maanaam nationalisme arabe. Hmm. am ñu ko ci jàppale am ay parti ci mhm. biir réew arab yi nga xam ne surtout ci jamono yu ndaw ci ci ñu xale yi. Hmm. Nasser la ñu àndal. Uh-huh. dañ leen di wooye le nasseriste wala na wala nasserisme nasserisme mujj nekk uh-huh. loo xam ne espèce idéologie la uh-huh. boo xam réew moo def fekk ko fa ñuy di bind ay tract di bind ay journaux euh, te boole gi itam euh, euh, Moyen-Orient comme ñu nga xam dafa bari ay clivage religieux chia sunna jaafariya ila axiri te loolu lépp dafa doon répercuté ci jullit ñi te di leen gën a soreel ah Faysal bi bu yëkkate idée bi am na sax ju ko ci tuumaal ne kii dafa bëgg a delloo si le pacte de Bagdad. Hmm. pacte de Bagdad amoon na ci jamono bi Irak nekkee nguur royaume. Hmm. Eh, Irak nekk ci eh, Pakistan nekk ci Turquie nekk ci et cetera anglais yi ñoo ko defoon pour bañ a perdre seen influence ci Moyen-Orient. Hmm. ñun nag loolu la Faysal bëgg a delloo boobu tam y la guerre froide. Mm-hmm. entre la Russie et les États-Unis mm-hmm. te booba addina bi yëpp xaajo amul ci amul ka mm-hmm. le guerre guerre froide boobu ñii Russie mi ngi leen di soutenir mi ngi leen di encourager mi ngi leen di jox gànnaay mi ngi leen di jox wax ay ay ay idée politique Amérique noonu loolu dem tax ñu gën a taxali ko tam day itam ñu daaneel al imam Badr mi nga xam ne moo commandé woon Yemen teg fa général Sallal te Yemen it ay jàmbaar lañu ay xeexkat lañu am ñu bañ ni mukk duñ fi taxaw république nañu fi bàyyi imaama bi fi nekkoon hmm. Nasser ak dooleem ak armée ñëw di xeex Yémen hmm. mu mu xaw a nekk presque guerre directe entre l'Arabie saoudite et l'Égypte loolu lu jafe woon la trop hmm. waaye nag boo agsee nag fi Faysal jaar Faysal bi mu jógee Pakistan ñëw na ba Mali ñëw na ba Guinée dem na Tunisie dem na Maroc Euh, daal daal di wàññeeku dem. dafa boobu temps dafa ñu romb ñun Sénégal parce que boobu temps digganteem ak Senghor leeragul. Hmm. Euh, waaye bi nga xamee ne nag faytale gi nekk ci loolu. ba yàlla mi nga xam nag lu ko deex dogal jamonoy lakk masjid Aqsa ñëw. Hmm. comme ñu koy waxee ci français ak ak quelque chose malheur est bon. Hmm. aw ruba baratin daa fi ci loola nag daal di tax jullit yi ah léegi kat man dellu gannaaw xool ba xam. Euh, ñu jéem nag dangale suñu bopp wala loolu moo moo indi le sommet de Casa de de de de Rabat euh, Oustaz Ibrahima wax na ko du ma ci tëdd ma ci dolli dara waaye li bëgg a wax moo di. Hmm. aussi parce que fi ngeen toll woon léegi. Hmm. ci sommet Dakar bi gis nga aussi hmm. émission bi nga ci def nii laaj baax na ci trop ndax. nit yi téeméer boo dem juróom-ñeent fukk yi xamuñu luy aussi. dañuy dégg tur yi rek. OCI organisation de la conférence islamique su fekkoon sax temps bi laaj na ko dinaa laaj pourquoi sax trouvé bu ñëw ndax euh, noonu mu ko waxee conférence bi ñu defoon Jeddah hmm. 1970. ah mu au mois de mars pour jéem a taral charte bi. Hmm. boobu temps roi Fahad moo nekk ministre de l' moo jiite woon daje ba. Hmm. ba mu coupé ba pare ñu formé bureau Moussa Rouweychi ambassadeur de Tunisie moo nekkoon président ba man maa nekkoon rapporteur. Euh, du de l'avant-projet de charte. mu wala le le le le le de la charte. ñun ñun ñoo ko liggéey bi ñu ko liggéeyee jébbal ko euh, conférence Pakistan. en en décembre soixante dix. ci la ñu ko adopté defaraat ko ba nommé Tanko Abdourahmane secrétaire général. depuis booba nag ak léegi si ni mu ko waxee am na yu aussi réalisé mais def na def na lu bëri. chef d'État yi bi ñu dajee en deux mille trois. Euh, en ah, Malaisie dañu ne nañu tànn mbooloo ñu xoolaat OCI bii ndax ni muy demee baax na ndax am na lu des. Hmm. ndax li mu fi tëral am nay rëq-rëq wala déet. Hmm. ñu tuddee mbooloo moom commission des éminentes personnalités de l'OCI lañ def shakhsiyaat yu bari hmm. la. lii mu mutabar islami ah, cinquante sept pays ñu ngi tànnoon fukki réew ak juróom Sénégal ci la bokk. président Abdoulaye Wade ne Cheikh Tidiane Gadio. Euh, nañu tànn Moustapha mu toogoon ci mbooloo moomu ci commission boobu commission bi def na ñetti réunion 2005 hmm. def nañu réunion euh, euh, en Malaisie hmm. mai 2005 ñu def benn réunion Pakistan septembre 2005 ñu def benn réunion hmm. en Arabie Saoudite mais dañu gis ne aussi yi mu créer bari na création yi bari na te mënu koo gérer lépp war nañu seet yi nga xam ne ñu ngi dox tel que centre technologie bi nekk Dakar au Bangladesh. Hmm. ak comme Comstech bi nga xam ne moo nekk Pakistan pour la hmm. technologie ba tey. Hmm. ak euh, centre international pour l'art et la culture islamique bi nekk euh, Turquie. ak UNESCO bi nga xam ne moo nekk ñoo ñu seen liggéey seen na waaye ci ci des yëpp mënuñoo koo doxal parce que aussi léeg-léeg mu traversé crise financière. léeg-léeg ñu ñàkk xaalis parce que réew du ñu cotiser. ñu ne nag nañ xoolaat loolu lépp d'accord mais nañu fexe ba aussi wàcc ci suuf. pour mën a boole jullit ñi. parce que bu ñu solidarité solidarité. solidarité jullit ñi mu ngi mën a jaar ci lan ci wàllu économie ak wàllu culture ak wàllu social. waaye mënul jaar ci politique parce que politique bi li mu ñuy taxalee mu ëpp li mu ñuy li mu ñuy boole. alors euh, suñu rapport boobu nañu defoon nag ci mbàkk en en septembre. quatre cinq. non décembre deux mille six. ci la chef d'État yi organisé benn euh, sommet extraordinaire. basé ko ci rapport boobu ndax rapport bi ñu pare dem dañ dem ba jox ko Almalik Abdallah teg ko ci loxo bon parce que boo gisee Nations Unies nit ñi xam lan la organisation yi moo tax PNUD PNUD mooy toppatoo ak développement économique et sociale di dimbali jullit ñi di dimbali la di dimbali doomu aadama yi di leen wo di leen assister ci bu ñu bëggee élaborer seen i plan de développement mm-hmm. fexe ba développement bu ne bu naa bu amee ay rëq-rëq ñu wane ko wala projet bu nekk bu bu fekkee gis nañ yoon wa wu mu gën a gaawee pour appliquer ko am na donc prix dool mooy liggéeyam après nga gis UNESCO moom itam ci wàllu science wàllu culture nga gis FAO ci wàllu mbéy wàllu wàllu ñam wàllu bu xiif abee fer di dimbali leen nga gis itam UNICEF muy toppatoo ndaw ñi ak yeneen loolu moo tax ñu xam loolu donc sëy yi nag defagul loolu hmm. te léegi nag gannaaw traversé nañu bañ ko créé léegi léegi mot 40 ans benn at ko manqué 40 ans. Hmm. gannaaw nag traversé na situation yu bari traversé li ñuy wax limitation internationale àlla mu tax ay raaj dawaliya hmm. ba léegi ñu nekk encore ci euh, la mondialisation. Hmm. léegi nag war nañu delloo suñu xel xool bu baax jël nag ay décision yu am solo yoo xam ne OCI yi dafay wàcc di jëriñ nit ñi. parce que tant loolu amul. nit ñi. day jàpp ne OCI yi concerné wu leen. Mhm. te itam ko xam. Mhm. loolu laa xam ne nag incha allah ci région Dakar bi dara am man ndax daañu charte bi daañu ko daañu ko modifié bu baax a baax a baax. Mhm. daañu ko seetaat euh, euh, jaarale ko yoon fexe ba mu dëppoo réalité monde bi. ndax suñu réunion bi mu lay wax euh, première réunion commission bi ma tudd léegi ñu defoon ko ak Malaisie. am na ñu bari ñu ne écoute nañu xoolaat charte bi parce que am na réew yu bëri adhéré ci aussi yi dara taxul lu may mën a bénéficier ci banque islamique développement hmm. waaye du gëm ko wala du du du conviction parce que boo ci dugg ci rek pour mën a bénéficier banque islamique développement suñ ci jógee du ñu cotiser réunion yi seen yoon buñ ñëwee bu ñu ubbi rek dem nañ seen yoon ñu toog duñu xaar hmm. euh, moo tax loolu lépp nag bu fekkente ne aussi bëggul ndax boppam wala bëggul ndax jullit yi ko yaakaar hmm. il faut que fii ci sommet Dakar bi mu nekk sommet de rupture ni Oustaz Ibrahima wax léegi. Mhm. maanaam fi ñu taxawoon daal sa gis nañ ne dëgërul wala bu dëgëreet war nañu ko passé jàll feneen ba monde bi gën gën ñëw rek loolu foog naa dana am te ab Abdoulaye Wade euh, am na suffisamment de caractère et de nerf pour mhm. mën a diriger ay échangement important à la tête de de Euh, loolu laa bëggoon rek sànni ko xam naa ni waxtu wi kat na te. jërëjëf euh, euh, Serigne encore une fois may félicité ba Oustaz Ibrahima bu baax a baax di fële sama rek moom. jërëjëf waay. Eh, Alaaji Moustapha ñu ngi koy gërëm bu baax parce que waxoon naa ci commencement bi ne ku am ak yëg la mm. mais ba léegi yëg yi mooy continuer ci lii mm, mm. Eh, oustaz eh, li ma bëggoon a laaj mooy wa man qatala muminan fa ka annama qatala naas jamian damay dégg léeg-léeg ñuy défendre droit de l'homme mm-hmm. waa jëñ rey ñoom ci côté boobu lañ koy defendre maanaam jàpp ne ki rey maanaam ki ko hmm. waruñ koo te aaya boobu la ñuy jëlee seen tegtal ñoom oustaz am na ku ne ci yoon ñu jël ko te arrêté téléphone yi nga tontu waaw eh, allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam sant bu baax man Jurbel waaw yow la ñu déglu waaw wala sëriñ bi nga xamante ni boole leen ci mbiram oto mu loo xamante lu ñu rafetlu la ñun ñëpp ndaxte mbir mi comme ni ko oustaz Barham waxee mbir mi mbiram diine moo ko lal. Mhm. moo leen jokkal ñun ñëpp waaye nag dama ci gis daal loo xamante ni dafa mel ni dafa am fu ñu limité ñoom ñoom. dafa am. fu ñu limité fu ñu yem. fu ñu yem ñoom. ci mbir mi. Hmm. moo di rek dama gis ne dañuy souvent di wane ay. spot ci télé bi di waxtaan ak quelque kilifa diine waxtaan ak kii mel ni kuy ñaax population bi. Hmm. pour que vraiment ñu am mobilisation bu rafet bi kii bi. Hmm. ma yaakaar na comme que mbir mi tamit dañu war a changer tout tout suñu suñu ci biir ndaxte problème bu warut yem ci rek kilifa diine la rek na yem ci côté diine bi. Hmm. yaakaar naa diine ak politique ak économique lépp ñu ngi ci biir. yaakaar naa ne bu ñu seetloo demlanteeg dikk bi ni ñu koy préparé sur sur le plan euh, international yooyu dañuy gis ni ay yenn façon nit rek lañ ko gis noonu ñoo xamante ñoo ci dox dox bu ñu mel mu mel ni suñu kilifa yooyu ñoom dafa am foo xam ne dañ leen faa yemloo ci ci ci ci mbiram aussi te yaakaar naa ne yaakaar naa ne war na ëpp loolu pour que ñoom itay buñ ci duggee sur le plan politique sur lépp loo xamante ne ay retombées la yoo xamante ni tey jii njiitu réew mi ngi ko ci xaar wala Sénégal mi ngi koy xaar wala umma bi mi ngi ko ci xaar pour que ñoom en retour ñu mën a ñëw pour mën a am ànd ak ñooñu pour ci yaakaar naa ne su ñu yemee fii rek loolu yëpp du ma du mën a nekk loo xam ne lu ant lay doon. Hmm. waaw loolu daal laa amul. Hmm. Hmm. dama ne naa ko naa naa ci dugg daal. merci jërëjëf euh, xam naa kon suñu réalisateur daf ñuy téyel téléphone yi. su ko defee ñu mën a tënk dara. waaw nga ne tàqali ko xuquuqul insaan droit de l'homme. waaw xam nga d' abord nañ d' accord ci ne lii ay alquran la muhkama. te itam. tashri'a la bu jiitu sax lislaam waaw hmm. annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fi l ardi fa ka annama qatala nnaasa jamian hmm. wan axyaaha fa ka annama axya nnaasa jamian foofu daanaka kenn égal tous ci tooñ ak defar hmm. waaw xam nga alquran dafa pertinent ci wax man qatala nafsan bi gayri nafsin rey bu amul raison aw fasadin fil ardi mu gën a garaawati parce que fasad fil ardi mooy indi perturbation yàq ci kaw suuf yàq maandu gi yàqu yemoo gi yàqu chance yi yàq yàq yëpp ku ko def yaa ngi mel ni rey nga ñëpp alors léegi nag l'islam wax na ci yeneen aaya naka la ñuy enquêter ba xam ne ki rey nit ki waru koo rey su boobaa qisaas buñ ci eggee mooy rey moom la wax nag ne wala kum fil qisaas xayaatun yaa ulil albaab kooku noonu droit de l'homme même biñ ko tuddewul sax am na juif yoo xam ne bëggoon nañ ci jam benn jullit waaw loxo boo xam ne euh, su tooñee suñ ko tooñee ñi ngi koy jotee cinq cent dinar urs hmm. bu sàccee rubu dinaar rek ñu donc la <laughs> waa ji ne ko ne ko ne teel la mu ne ko alyadu samina maadamat amina falamma xaanat haanat valeur bi ngay wax yëpp pour loxo mooy bam mu nekkee jàmbur maandu tooñul kenn waaye ba mu urujee rek lay mën a jaar prix la ñàkk valeur waaw mhm. moom sax dèjà kële daf ko woyoon kii woy ko mhm. kële daf ne ko yedun bi xam si mi inin yahud bi maa baaluha qutiat fi ruuci dinaari mu ne ko izzul amaanati axlaaha wa arxasaha dullul xiyaanati fafham xikmatal baari yi alors li wér mooy kenn amul droit rey bakkan l'islam nag bi mu ne walakum fi qisaasi xayaatun ku mu wóor ne dafa tooñ te baaluñ ko jotuwul ñu rey ko dina tax rey dootu bëri ñee xool ci kaw ne non kenn dee woon ñaar mujj nañ dee mais est-ce que gannaaw dee ak ñaareel boobu nit ñi dinañ yabati di rey ay nit te xam ne dañuy dee hmm. loolu mooy xikma loolu nag moo tax ci taarixul islam loxo yiñ doog bëriwut nit ñi rey pour yu bëriwuñ c'est parce que législation la boo xam ne dafa tax nit ñi soqi seeni sox te loolu rek l'islam bëggoon Euh, professeur sommet OCI bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal ci ay fan yu néew. dal nañ ci yàlla yeggale. te ñu génnee ci ci jàmm. léegi yow soo amee ay dénkaane yooyu dénk ñi nga xam ne ñu ngi ko dëgg mal tey moo xam ñi koy organiser moo xam ñu dëkk ci réew mi umma bi yëpp boo amee dénkaane yooyu dénkaane loo leen di dénk. nu hmm. ni tuxni daaru abi Sufyaan an Quraysh <laughs> <laughs> c'est-à-dire ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. d'abord lenn mun naa dal xel je suis sûr que commission yi liggéey directement loo xalaat sax xëy na fekk ñu formuler ko moo tax ci benn conférence boo doon defal les femmes d'affaires musulmanes euh, bi ñu ma laajee luy seen rôle ci OCI dama ne leen OCI day mbiram sommet la bu ñu xasee bay daje. njëriñ li day wàcc ci moom xëy na ku ci am chance bokk ca mais nag am na lu nit ku nekk mën ci sa bopp par exemple gan ñi fi naayoo ñëw chef yi ñoo ci gën a tuuti hmm. y ministre les ministres sécurité gan ñi ay junney nit fi naayoo ñëw yéen ñi comme yéenay soxna yi am jom bay liggéey jàngal leen ñi ci des ñëpp ne ku ne na waat ne lu ñuy yabee Sénégal day durant conférence bi du jógee ci man-man hmm. déjà c'est positif hmm. ma ne bu fekkee ne mbir mi laaj na mobilisation kenn dàqu ko yéen jigéen ñi mun leen cee engagé ka koy dox dox kook yéen su laajee encouragement noonu yéen femme d'affaires yi itam aussi am na am na volet économique jéem leen a fexe ba xam nan la ak fan la parce que du suma liggéey fii Eh, am na lu ñëpp mën itam mooy yaa bi parce que yonent bi def ne xorom sax bu sa jabar di xoromee bul ko xeeb bu ko yàlla jafeelee day jafee kon nag ñëpp mën nañ ñaan euh, li ñu teg jàmm yàlla nay jàmm li ñuy ut muy lu baax yàlla lañ ko jot te itam lii tax société di dëgër yàlla nañu ko yàlla may te surtout surtout surtout paix sociale mi nga xam ne bu absenté dara du baax yàlla na fi am te sax fi mais nag euh, sommet moom bu demee bay daje ñëw nen hmm. kenn fekkewu ko ñetti institution moo moo am ci OCI yi hmm. euh, sommet bi chef d'état yi daje hmm. ak ministre affaires étrangères yi ak secrétariat général yi ci des nag ay banqaas rek la banqaas yooyu Moustapha doon junju son excellence yi ci am war nañ ko renforcer yi ci amagul te expérience wone ne Euh, am na njëriñ feneen surtout surtout ICESCO ci branche yi OCI yi ma fàtte tudd te yi gën a am efficacité la bokk aussi hmm. ci science euh, culture ak euh, waaw yi yi nga xam ne yëpp moo ko tax a jóg daal liggéey bu sérieux lay liggéey moom mais nag professeur mbooloo bu ñu dajee hmm. xam nga mbooloo ma du du mun a tekki lu muy ñeg ko dajale lañ tekki rek. waaw ci lu wér. Hmm? loolu lay peese parce que xam nga. Hmm. benn xakim oo fukki doomam gis ne dafay waaj a faatu. Hmm. mu jël fukki banti mbëñ fàlla takk ko jox ko taaw bi ne ko damm ko munu koo damm. mu jox ñoom ñëpp tour de rôle ku ne dëgg. mu dagg buum gi ku ne mu jox la benn dammal nga damm. mooy leen discours bu gàtt la su ngeen booloo. nii ngeen di mel. su ngeen tàggoo nii ngeen di mel ku leen song mën leen waaye je suis sûr et certain que bu ñu demee ba jullit ñi bokk ci ñi naan ida xaala faal bu waxee def de kenn du tapage mille cinq cent millions yu bokk di wax laa ilaha illa allaahu kuñ bàyyi sam njaay doo jarle ku ñu ne allahu akbar ay fan ñaan la yàlla du baax ci yow kuñ xaritoo yitam da nga wettiliku moo tax nag mbooloo mi jox ko contenu ñi ngi koy def ma ñu gën koo jox te itam te itam yonent Yàlla Muhammad am na lu mu wax hmm. wax boo xam ne man dama doon mébét képp kuy responsable ci kaw suuf mu nekk ci sa buntu néeg hmm. nee na ku responsabiliser kenn ci biir mbooloo moo xam ne ku ko gën a ab tànca hmm. pour def loolee pour jul pour nit ñi uruj nga yàlla uruj nga yonent bi uruj nga jullit ñi Ah, parce que bu ñu toogee man du ma médecin nga jox ma blouse yi bàyyi médecin bi loolu ba musiba maanaam rek li ñuy wax right man ci right place loolu islaam la pur waaw Sénégal ak Mali ak Misra ak fu ci nekk amul ci benn réew mu jërmel ba amuloo doom yu mun a taawu dara mu sotti ci jàmm bu ñu demee nag ba liggéeyal ñëpp des ci nag foofu la objectivité amee njëriñ alors ah, je fais confiance aux responsables c'est parce que euh, nit daal su góorgóorlu mën na lu nekk. Euh, professeur euh, bëggoon naa xam relation bi takkale diggante Rabita ak muxtamaral islami muy aussi ndax mel na ni bu fekkee amul leen boole it mës nañ àndoon ci commencement. dé na la xam nga wax naa la ne. waaw ah. rabitatul alamil islami. Hmm. ligue islamique mondiale hmm. bi nga xam ne. l'assemblée constituante bi koy diriger dafa am secretaire général am président mais nag membre yëpp ñoom ñoo yem am nag ay am secrétariat bu am service yu bari wax naa la ne mouvement bi déclenché ba mujj jur OCI yi foofu la juddo ku ko xamutoon nga xam ko ici dama bañ ba dama dellu ci suba document ya mun naa la lire exactement quelques quelques phrases résolution bi tax Faysal jóg mi ngi nii ma amee dañu ne woon euh, ajma'u ala anna aalamahum yushakkilu kutlatan waxidatan tarbitu bayna ajzaihi ajzai aalam bi ajzaihi wa shuubihi aqidatul islam bi nas alqurani alkarim wa anna hadihi ummatukum ummatan waxidatan wa ana rabbukum faabuduni wa anna alhajamat alsiyasiyata walfikriyata allati tataaradu laha alshucubu alislamiyatu tuxattimu ala almuslimina an yatacaawanuu wa yatasaanaduu li iqaamati kutlatin caalamiyatin takunu min alquwati walmanaati bi xaysu taxmi caqaidaha wa masalixaha wa tushimu fi taxqiqi silmi alaalami wa tatawur alxayaat alinsaniya naxwa wadcin afdal wa likay yataxaqaqa qiyaamu hadi alkutlati laa budda an yusbixa alwalaau lilcaqidati alislaamiyati wa maslaxati alummati alislaamiyati fi majmuuciha fawqa alwalaai lilqawmiyaati walasabiyaat أخيرا كما يجب أن تتجه الحكومات الإسلامية لتوثيق الصلات فيما بينها في مختلف الحقول السياسية والاقتصادية والثقافية روح gi ngay fekk ci misaaxu OCI yi buñ ko waxee buñ ko wax ndax ndax kutlatul OCI bi ñu nga xam ne depuis ñu koy sos ñu ngi junji xuwa boobu kàttan boobu ndax mm. kàttan boobu mës na feeñ benn yoon ci jamono waaw xam naa du ñàkk a feeñ waaye nag feeñ li ñuy wax ala mustawal maaraka loolu moo jafe maanaam xam nga nit mun naa def waaye def la ñuy séentu ci moom loolu moo jafe ne moom xataan aussi yi def na lu bare bare bare man sax suma organisation série sax série sax boobu dem fekk fa unité boo xam ne ñoo ko tabax pour plus de trois cent et quelques mille dollars <laughs> waaye nag euh, liggéey bu tolloog ummatu bi nga xam ne ku ne da ngay yëg ci sa xol ne chef nga de politiquement mais nag yokk na ci ne responsable nga musulman sa nawle mooy Seydina Aboubacar Siddiq radiallahu anhu même bu la gënee jamono te ba nit ñi commencé murtad moom moo defoon déclaration yi yunqadul islaamu wa ana xay l'islam dañ koy firi te may dund loolu du am mukk ci àddina mm. duñ egg sax ci jaamaarloo yëpp day réglé parce que que li sànq jàmbaar lu mu gàddu surtout jàmbaar bu gëm bu sellal mun na yegg fu nekk te doomu aadama jarta xeeb jërëjëf euh, professeur Ibrahim Mahmoud Diop euh, kon ñoo ngi ci suñu minute yu mujj yan kàddu ngay tàggatoo waaw euh, maa ngi nuyu ñëpp rek di leen baalu ndax te xëy na sax yaa ngi wax ak ay ñoo xam ne peut-être xam nañ ci mbir mi lu bëri loo xamut xam nga itam lu bëri loo leen waxut kon nag nañ ma baal eh, seetlu naa rek ne eh, kiñ junjul te mu am solo lool mooy l'actuel secretaire général Ihsan Oglu docteur Ihsan Oglu parce que dafa di ku jàng jàng jàng. moom turquien boo xam ne am na ren euh, soixante cinq ans oh, euh, turc bu jàngee Aynu Shams. xaayara xaayara pour pour euh, licence am ak maîtrise am après mu def doctorat réewam après mu nekk ab xaas ci Angleterre ci benn université ba jàngale na taalif na téere yu bëri ci domaine science surtout ak relation jullit ñi ak Occident ak turc ak alamul arabi am téereem yi am na six langues yuñ ko yuñ ko yuñ ko sonn ci domaine bi avant ñuy xalaat nommé ko hmm. nit la ku mag nag waaw hmm. te itam lu mu néew néew mun na mun na ñett ñeenti langue bu baax a baax a baax kon nag euh, yal na ko yàlla inspiré kon nag li may dénkaane rek mooy euh, kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi jullit daal fu mu nekk na xam ne responsable la lu mu tuuti tuuti bu ko nekk defoon sa responsabilité bàyyi ko xel rek jàmm di am di yokku mus naa dégg kenn ku wax Baay Ñas ca ma ca Qaahira ne ko laa shukra ala waajib ay ala waajibin def lu def sa warigar laajul gërmaane mu ne bal laa shukra illa ala waajibin warigar ci nga war a sant nit sax ndax bëri ñi deful seen warigar ca même jotaay ba waxtaan ba yàgg na ci mu seetlu ngeen ne ñaari état yi ëpp doole muy États-Unis booba matériellement ak Union soviétique duñ benn état ay état la ndax kii les États-Unis la ñuy wax kii Union soviétique jullit ñi bés bu ñu bàyyee woon xel loolu wax na ko ci minbaru Azhar di fa jiite juma 1961 xaw meel arabiya bi Moustapha doon wax léegi hmm. panarabisme mu ne jamaal ab nation koy wax maa ngi ko ciy dëgëral mais ci condition mu nekk jéego bu njëkk bu ñu yóbbu ci xawmiyal islamiya moom la ko duggee woon. waaw dégg dégg mu ne bàyyi moom loolu la koy nangoo. ah oui d'accord nañ ci jaar dem ci xawmiyal islamiya hmm. ndax mu ne li arab yi bàkkoo yépp hmm. pour moom en tant que arabe banaan uruba mu ne yàlla daf ko tënk ci wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin ci suratul jumaa mm-hmm, mm-hmm. li li am yëpp gannaaw gi bañ dugg tiitaroo gannaaw iqra la ñëw kon nag bu ñu ko fàtte jërëjëf euh, professeur Ibrahima Mahmoud Diop euh, kon ñu dellu ko gërëmaat beneen yoon ndax jëkkoon nañ ñu dalal ko fi te it ñu tólleente at ko muy beneen yoon te luñ lëntale lëntale xam nañ ne programme bu sarse la yore mais terewut buñ ko soxlaa dafay bàyyi dara ñëw wuy si ñi wax dëgg yàlla nit nag bu fekkee ne ku programme am la te boo ko soxlaa mu jar sippi lenn ci lam yenoon pour yow eh, ngir dabu bànneexu jullit ñi loolu rek mooy li ko yitteel kon danañ ko gërëm ñaanal ko yàlla defal ko tawfiix ñaanal ko yàlla guddal fanam yeggale ay procès yëpp ndax eh, ndam la ci diine ji ndam la ci réew mi eh, du ñu fàttee gërëm it ambassadeur Alaaji Moustapha Cissé ndax def na acte bu rëy boo xam ne bi eh, wax dëgg yàlla lu rëy la ci ñun ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax a baax mu walbati ku duggaat encore pour firndeel jëf jëm def léegi mm, mm, kon mm. ñu ngi koy ñaaral yàlla defal ko tawfiix wax dëgg yàlla eh, ku am yëg la ci liñ ko doon doyee te wane na ne am nag yëg def na ci la nga xam ne moo tollook man-manam ñu ngi koy ñaaral yàlla tawfiix bi kulli saraxa eh, kon di fàttali bokk yi nga xam ne ñu ngi jàpp ngi ñu ngi gërëm di gërëm kër gi te wàccegu leen parce que. Mhm. jërëjëf eh, kon ñu ngi leen di fàttali na leen eh, seen télévision RDV lii la yàlla dogaloon mu am ko ci temps ñoo ngi dalaloon tey oustaz Ibrahima Mahmoud Diop Barham mhm. dalaloon it eh, Alhaji Moustapha Cissé ambassadeur. mu mus ngeen ko mu dugg wax-wax yu rafet yooyu eh, di leen ñaana yàlla tawfiix di gërëm it suñu maan yi nga xam ne seen liggéey rafet na di gërëm képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci liggéey bi rawatina preneur de son yi di leen jox ràndiw dox daje ba ajuma bi di ñëw insha allahu maulana di leen wax nag lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko ni lu ci manqué ci matta dañ nun ko doy wax la noo ngi leen koy jéggalu di leen baal aq di leen baal aq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chen MALBN bu leen fàtte bës kolos bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi